mbokk auditeurs yi jërë ngeen jëf ci déglu bi ngeen ñi farataal di déglu vendredi nag bu waxtu wi jotee ngeen di farataal di déglu seen émission bi di SOS santé tey nag SOS santé am mbégte ak bànneex di daral ki nga xamante ne moom moo di docteur Omar Boun Khatab Thiam euh, nekk nekk président de l' alliance nationale pour la sécurité des patients waaye tamit nekk anesthésiste réanimateur te beneen wàllu wa mu nekk économiste économiste de la santé docteur nag tey moom mbokk auditeurs yi am nañu gan boo xamante ne macha allah casquette am yi bëri na xanaa rek sant ko gërëm ko ci nangu bi nga xamante ni nangu na ko uyu ci suñu invitation bile docteur Oumar Boun Khatab Thiam ñu ngi lay wax dalal ak jàmm ci rajo Rewmi FM. salaamaaleykum Fatou maa ngi lay nuyu. Mhm. di nuyu bépp auditeur euh, di ñaan yàlla émission bi ah, ñu def ko ci jàmm ak salaam. Mhm. mu mun a am njëriñ ci askan d'accord euh, merci beaucoup docteur euh, tàmbaleek euh, suñu waxtaan wi ak kuréel bi nga jiite muy alliance nationale pour la sécurité des patients xam naa am na loo xamante ne mooy sabap ngeen taxawal lu ni mel rek bu ñu defal benn objectif lu sabab création wu alliance bu ni mel lan nga ñu ci mën a wax docteur Thiam. alliance bi mi ngi dooree pour li ñu motiver pour ñu taxawal ko mooy mooy 2004. Euh, mm-hmm. organisation mondiale de la santé. ak alliance mondiale pour la sécurité des patients. ñoo taxaw am gëstu bu ñu def. ne bu ñuy faj. dana am lu tubaab di wax effet indésirable. maanaam. Euh, mun nañu juum ci ci ci ci paj mi. mun na am ay complications ci paj mi yoo xam ne wutuñu ko ci woon. Mm-hmm. te loolu ay erreur ay manquement ay complication mun na am lu mel ni par exemple xeetu ay infection maanaam mun nga ñëw di faji hôpital ñoo indiwoo xeetu euh, euh, euh, pour jàngoro bi ngay bi ngay faj nga jëlaale fa infection ñu ne loolu nag demoon na boo jaaxal nit ñi taxaw ci def ci gëstu seetlu ne loolu même dans les pays pays euh, yi nga xam ne ñoo gën a développé hmm, occidentaux yi nga xam ne ñoo ëpp mooy ñoo ëpp ki kooku dañ ko xayma mu dolloo environ euh, cinq à dix pour cent foofu mais ñu ne loolu ci pays yi nga xam ne dañoo nekk en voie de développement comme sunu sunu réew yi Afrique ak yooyu jafe-jafe yooyu mun da multiplier par dix li xaw Occident da nga koy multiplier par dix donc mu gën a ëpp dayoo ci euh, réew yu développé mm-hmm. donc ñu ne loolu il faut que ñu taxaw xeex ko pour ñu xeex ko nag euh, OMS dafa waxoon ko bépp membre OMS da ngay d'accord ci charte yi pour ne dañuy loolu def loolu une priorité ci suñu politique de santé mhm. la prévention maanaam aar ci infection la njëkk a commencé les infections nosocomiales mooy infection yoo xam ne boo demee ci biir bërëbu fajukaay mun nga ko faam foofu nga ko jëlee moom lañ jëkk ne dañ koy xeex mhm. parce que moom moom dafa def dafa nekkoon premier ci yeneen xeetu problème yi mhm. ñu ne nag pour loolu dañuy taxawal euh, na réew bu nekk boo signé accord bi na taxawal kuréel boo xam ne mooy saytu loolu. Mhm. pour prévention infection yooyu. Mhm. qu'on appelle prévention des infections nosocomiales. Mhm. noonu la Sénégal depuis 2004. taxawalee le PRONALIN programme national de lutte contre les infections nosocomiales. dañ ko tuddee sama benn euh, aîné moo ko jëkk moo ko jëkk a def. Mm. le leen Ndoye moo nekkoon coordonnateur bi ba mu demee retraite man maa ko fa remplacer. Mm-hmm. loolu OMS def ko teg ci xolu système de santé bi. dirigé naa Pronalin pendant quelques années. Mm-hmm. Dantec la nekkoon ma jógee foofu ñëw alors politique bu Pronalin tegoon. mooy chaque structure de santé ñu développé benn kuréel boo xam ne mooy saytu affaire infection yi di koy xeex mhm. prévention infection mooy à l'époque structure bu nekk dañ fa defoon comité de lutte contre les infections nosocomiales Dantec amoon na mhm. Louga amoon na partout hôpital fépp fu am hôpital samp nañ ko fa samp ko en même temps ñu ne dañuy taxawal kuréelu buy def sécurité des patients ci noonu lañ ñu def benn assemblée générale pour créer l'alliance nationale pour la sécurité des patients parce que euh, OMS ak alliance mondiale de la pour la sécurité des patients ñoo ko exiger mhm. pays yi mhm. donc noonu la ñuy ma nommé président ma déposer sama récépissé mhm. au niveau du ministère de l'intérieur récépissé bi mi ngi génn en 2012. léegi kuréel boobu ñu ne nekkuñu fii pour naan dañuy xaar ba jaan bi dem ñu dóor ci watat ba mhm. lépp lu ko tax a jóg mooy renforcer lëkkaloo acteur de la santé yi pour jéem a soutenir politique de prévention dans les structures de soins mhm. des infections et aussi la sécurité dans tous les domaines par exemple affaire injection mhm. affaire transfusion affaire lépp lu ñu xalaat ne installation bâtiment par exemple comité d'hygiène et de sécurité dañ ko jógoon pour samp ko ci structure de soin bu nekk mhm. kooku kiyam mooy def prévention jéem a xool ne lii kat installation par exemple courant bi baaxul bu ñu ci jógalee mun na indi jéeya mhm. wala par exemple euh, mbalit mi ni koy defee baaxul. Mhm. nit mun na ci ñëw ñu indi loraange. Mhm. ainsi de suite ainsi de wala par exemple lu ñu defee injection jël aiguille sànni fu nekk ñu wut boîte de sécurité. Mhm. pour def ci pour que nit ki bu dee dox hôpital aiguille boobu bu jë boo ko jamee malade bi boo ko sànnee non seulement personnel bi mun nañ ci loru. buñ ko buñ euh, ci gaañoo. mun na leen jox tétanos pour que pas mun na leen jox même sida. Mm-hmm. alors donc alors donc. Mm-hmm. par rapport à tout ça. Mm-hmm. ñu ne léegi nag donc loolu dafay ñëw pour aar. prévenir donc joxe les bonnes règles en matière d'hygiène en matière de sécurité moo tax ñu CLEI yi ñu transformé ko léegi en comité d'hygiène et de sécurité. mais programme boobu ba ma fa nekkoon ba ma fa jógee. dama gis ne programme bi dañ ko diluer ci benn di direction bu rëy mhm. bu naan qualité xawma prévention qualité hygiène sécurité mhm. loolu dafay euh, naxasal programme bi mhm. daf koy wàññi efficacité am parce que man ba ma ca nekkee coordonnateur juróom benn weer yu nekk dina def réew mi tuuru réew mi mm. saytu saytu fu hôpital nekk fu centre de santé nekk district fu nekk ma dugg fa euh, région yi euh, quatorze régions yëpp def na ko dégg donc et tous les départements mm -hmm. tous les six ma def ko mhm. pour tagal leen évaluer leen fan lañ toll ci programme bi ndax ñu ngi kii bu loolu weesoo loolu ñuy wax raxas lu hygiène de mai Chaque cinq mai, demain à l'instar de l'Organisation mondiale de la santé, qui nous l'a exigé avec euh, l'Alliance nationale pour la sécurité des patients, damay organiser benn journée sur l'hygiène des mains. L'hygiène des mains. Okay. Chaque cinq mai. Chaque cinq mai dama ko daan organiser. Mm-hmm. ministère yi ñu ñëw taxaw ma ñëw invité ñu nekk ci région yëpp ak ci département yi ñu ñëw ñu échanger ci suñu politique de prévention par rapport aux infections nosocomiales ou associées aux aux soins c'est le terme le plus consacré. Mm-hmm. une journée donc. def ay politique pour naan naka la ñuy raxasee loxo ay kiiro kooku bala balaa Ebola di ñëw. Mm-hmm. far yàlla def Ebola ñëw. Sénégal amoon na gis-gis boobu Mm-hmm. surtout per ci personnel de santé. amoon na ay flyers yu ñu defar. pour expliquer nan la ñuy raxasee loxo nan lañ ko defee ak yooyu yooyu yëpp dañ ko district boo demoon centre de santé boo demoon structure de soins boo demoon partout dañ ko doon taf ci mur yi ak affaire yooyu. région région yëpp lañ def wërale ko di koy gëstu saa yu nekk ñu def évaluation ndax kii am na ko danañ kii danañ raxas seen loxo jumtuwaay bi et cetera et matériel mot na noonu lama ma USAID xam nga américain yi duñ caaxaan mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. financement ma ubbi Dantec créer benn unité de fabrication de solution hydroalcoolique mooy yéen gel yi. gel gel. yi. Mm-hmm. mais ba gel yi benn façon la am na beneen façon boo xam ne ndox la. Mm-hmm. ak alcool mooy solution hydroalcoolique. ok. Mm-hmm. ñu installé ma ko foofu Dantec. Dantec. installé ma benn à Touba. temps boobu 2014 la Ebola éclaté. Magalu Touba fekk na unité de production de solution hydroalcoolique. am. exister exister parce que comment gel yi commencé woon na manqué. Mhm. ñu ne dans chaque structure pour fagaru promouvoir. Euh, l'hygiène mhm. hygiène loxo yi. Mhm. hygiène des mains hygiène des mains. fay installer solution de fabrication de euh, euh, unité de fabrication de solution hydroalcoolique. keroog unité boobu nekk Touba maag ministre Eva Malicor Seck moo nekkoon ministre la santé. mu inauguré. ca jamono. ca jamono inauguré bu Dantec. Mhm. njaareem amoon nañ fa. Louga defar nañ fa. loolu lañ amoon projet pour defar Kaolack. au lieu que gars yi eh, ñuy dem ci pharmacie yi naan ñu ngi jënd ñu ngi di te produit dafa cher ñu ne ko ñu defar ñu defaral ko seen bopp. malheureusement Sénégal boo defaree boo fa amatul euh, boo fa nekkatul wala bu amatul suivi dañ koy sànni naxasal ko. Mhm. bu yàqee duñu réparé bu kiyee duñ kii. daan teg affaire yi demoon na ba affaire yi fonctionné tul keroog ba corona éclaté bu njaareem rek gis nit ñi euh, euh, mu euh, continuer bu Tuuba xaw ma nu mu naa ndoxul hôpital Ndamaat mhm. hôpital kii Matlaboul Fawzeyni mhm. donc amoon nañ gis-gis boobu Pronalé mi ngi mel ni programme de lutte contre le paludisme kenn waru ko fay. kenn war ko diigal. parce que dafa toll ci jamono. surtout chaque chaque semaine wala chaque mois ñu dégg infection. bu bees bu bees et surtout dañ ci war a dañ ko war a gën a renforcer. parce que épidémie jeexagul. déedéet. Ebola ñëw na. Mhm. mais Ebola demagul complètement coronavirus mi ngi fi jeexawul te gis nga de raxas loxo hygiène de vie dafa nekk au premier plan. Mhm. Mhm. loolu weesu ma réactualiser ba ma fa nekkee ministère de la santé plan de gestion nationale de gestion des déchets biomédicaux maanaam mbalit di ordre yi nekk euh, euh, ci euh, ci structure de soins mhm. naka lañ koy gérer parce que léegi. bailleurs de fonds yi dañuy exigeant dañuy teg prévention contre les infections au premier plan de tout naka noonu ñu boole wale ci sécurité transfusionnelle sécurité ba maanaam booy booy ki ñu rappeler la règle yi yi nga war a respecter wala bu nit amee jam-jam di def benn traitement wa euh, euh, Euh, aiguille bi jam benn malade ñëw jam ko mu juum mu jam ko te xam nga xamuñu malade bi il est sidéré mhm. ou bien ñu jàngal ko nu muy nu muy yan mesure lay jëkk a mhm. mhm. alors donc par rapport à tout ça moo tax euh, alliance nationale pour la sécurité des patients dafa di kuréel boo xam ne dafay dafay dafay dafay dafay dafay accompagner ministère. Mhm. parce que dañoo xam ne projet yi dafa bari léegi. Mhm. te yu amul njëriñ la. Mhm. bërki démb daaw déggoon ngeen affaire Linguère Louga. Tivaouane. mbuur peut-être quelque euh, euh, euh, fan yële jëye naroon na fam mhm. ak yeneen structure clinique Madeleine ak fer donc mu nekk problème boo xam ni du procès moo koy réglé. Euh, ci ci jaye yooyu sax yaa ngi am na actualité bu ñu dab rek barki Dembo Ndiaye. voilà euh, ca euh, centre wala hôpital bu Kédougou bu ñuy wax ne ba am soxna dafa doon war a mucc ñu war ko opérer césarienne. malheureusement musiba daal di am juste rek pour rejoindre jaye yooyu. malheureusement raxaale ci actualité bo très bien kooku malheureusement malheureusement. Mm-hmm. demee suñu système de santé moo faible. Mm-hmm. te ñëpp reconnaître nañ ko que nit di faju am ci loraange du ne guléet ci Sénégal ci Sénégal du ne guléet ci Afrique mais nag ñi ci ñàkk seen bakkan ñu ngi leen di ñaan yàlla yàlla waaye fa suuf seen kaw mm-hmm. parce que aussi il y a deux mm-hmm. nit gaa mun na nekk négligent mm-hmm. ci liggéeyam kooku du ñakk kooku ci nit ki la mhm. mais nit ki aussi dara mun na ko dal ci liggéeyam fekk teyu ko du tayeef te yaakaar naa loolu moo gën a bari parce que nit boo jógee def métier yaakaar naa wiiw nga ci wut pour parce que nit doo liggéey fenn pour que maladie di la daw da nga bëgg loo def am ca pour que ëllëg sa tur waaye nag bu ndogal ñëwee c'est vrai naam nañu saytu toog xool cause yi parce que commencé na bëri. le mal est profond. le mal est profond waxoon naa ko fii suñu système de santé la. Mm-hmm. yaa ngi may laaj démb ne ma affaire Kédougou ma ne ko. Mm-hmm. daal man du ma ci jël position pour condamner. procès parce que dama xam lan lan mhm. dama nekk médecin exercer médecine. Mhm. xam les réalités du terrain. am une certaine expertise et une certaine expérience. Mhm. du ma tëb tëb rek di condamner. le corps médical ou le corps médical. muy nekk paramédical ak médecin. yëpp. tout su fekkee loolu la ñun ñëpp am nañ responsabilité. commencé ci gouvernement bi. ba ci yéen journaliste mhm. ak ñun en tant que Sénégal. parce que Sénégal la li xew Sénégal. Sénégal te ki gaañu. sunu yaay la. ci waxin. Mhm. yaay la. Mhm. rakk la mbokk la jarbaat la. kon nag. loolu ko daal mun na dal kenn ku jege ci ñoom personne n'est à l'abri du besoin moo tax boo ma nee mal bi il est profond nañu toog gëstu ko saytu ko approfondir te xam nañ lan la mal bi mënul weesu infrastructure équipement ressources humaines ressources humaines et gouvernance beneen wàlla bi mooy accessibilité financière. L'accès aux soins. L'accès aux soins. Que ce soit accessibilité géographique ak accessibilité financière. Mm -hmm. donc yooyu xeet c'est pas un euh, risque c'est pas en cinq ans wala dix ans lañ koy régler. Mm-hmm. ñuy objectif de développement durable. avec des projets jusqu'à 2035 ou plus ce qui veut dire que donc tey tey tey xëy donné kii moom kay chaque année bu ñuy évaluer ñu xa ñu xool ndax def nga jéego y a moins le taux de mortalité maternelle infantile boo xam ne moo nekk premier plan mm-hmm. ci affaire u priorité de santé système de santé loolu boo defee seetee ba léegi s'il y a des efforts qui ont été faits jéego yaa ngi euh, euh, mi ngi wàññeeku loolu mooy yaa ngi dem vers ton objectif léegi li xew Kédougou man ma nekk fii ma ne wéy ma condamné non d'abord xawma ma malade bi ba mu ëmbee est-ce que mi ngi doon suivre sage-femme ok li ma ci dégg mooy mus nañ ko césarienne mu mm-hmm. ngi ko doon suivre est-ce que moom malaad bi mi ngi doon def consultation prénatale mi régulièrement est-ce que malade bi boo mu commencé ba yëg dara ci yaramam dem na directement hôpital mm-hmm. parce que hôpital aussi man vivre na euh, euh, expérience yi yenn saa yi malade dafa daan ñëw jàngat-jàngate hôpital boo hôpital mu dem te fekk du foofu du barab booba Dantec lay ñëw te bu ñëwee Dantec ci taxi la daan ñëw fekk malade bi sonn na dee na ba pare. def na le tour. waaw def na le tour donc kañ lañ ko jël il faut que des technique dem ci le terrain pour évaluer. Mhm. mais bu tëb tëb rek daal di arrêté xam nga ñu ngi doon toog ñu naan gynécologue amul. ñëpp Dakar pardon ñëpp Dakar lañ nekk gynécologue yi ñëpp Dakar lañ nekk ko ci affecté duggu wala Kolda wala feneen day bañ. parce que motivation amul. les moyens ne suivent pas. les moyens finan euh, financiers pas. motivation amul. xam nga nit ku nekk fii boo nekkee santé ngay def. da nga ne du métier. patriotisme moo la ci jàpp. xam nga li ma la de. Mhm. le salaire de médecin xanaa temps yi lañ ko xoolaat rek. Mhm. temps yi rek lañ ko xoolaat te doyul. tout nga am njaboot am lépp. boo ñu nekkee Dakar yoo war a ñëw fay loyer war a ñëw liggéey si ces soucis là. Mhm. il faut avoir un politique pour que nit ki. nangu liggéey dans la fonction bi et puis ensuite dem hors du hors hors de la capitale. mais métier la responsabilité la boo leen naxasal naxasalee mais de day nërmelu un gynécologue qui s'est battu pour sauver la vie de la dame ñu ñëw di wax presse bi di wax loo xam ne nekkuñu woon bloc opératoire. Mm-hmm. Mm-hmm. ñu ne dañoo dagg baatu xale bi dañoo dagg kii mais loolu duma dugg ci détail technique yooyu. mais dama xam ne rek euh, su fekkoon gynécologue euh, gynécologue bi bi fa nekkee ak anesthésiste bi wutuñu woon pour rayu malade. léegi nga tëj leen bi ku dëkk ba. amatul région bi yëpp amatul gynécologue mhm. amatul anesthésiste mhm. te euh, malaan yaa ngi bëgg a ëmb ñu ngi war a euh, ñu war leen opérer nga teg leen loxo ñooñu mhm. ñuy faatu dana bari tout à fait kon benn bakkan lañu bëggoon sauver de euh, danañ yóbbaale yeneen bakkan d'accord donc la justice n'est la solution d'accord la politique de prévention mhm. dañoo war a am courage toog def ko naam y des efforts qui sont faits mhm. mais un système est fait pour être évalué et nit yi waxante dëgg d'accord euh, docteur Thiam dañuy wéy ci wàllu woow rek des ba léegi ci eh, sa casquette président bu alliance donc nationale pour la sécurité des patients semaine bu ñu génn wala ay semaine ci ginnaaw rek eh, information bi yëgoon nañ ko moo di hôpital Aristide Le Dantec dañ ko daal di fermer pour être précis le 14 août bu ñu génn eh, biñ ko daal di tëjee nag wax nañ ne dañuy def dañ koy def hôpital de niveau boo xamante dafay nekk hôpital bu mucc ayib am na ay patients yu ñu yóbbu ci hôpital Dalal Jamm hôpital Touba hôpital principal tey docteur ndax jàppaloon dañu def la charrue avant les bœufs je m'explique parce que hôpital yooyu ñu transférer les malades ñoom am nañ seen malade yoo xamante ne ñoom dañ leen doon référer ci yeneen structure hospitalière tey bu ñu jëlee lépp lu nekkoon Dantec daal di koy yóbbu naam pour defar la sax ci lu ñu wax ba léegi kenn bañ ko mais lu leen doy tey la politique euh, la charrue avant les bœufs naka nga jàngate le fait que ñu jël ñu ñu génnee ay malades Dantec yóbbu leen ci yeneen structure hospitalière te xam naa les mesures d'accompagnement du ma ne amul mais amaana ma des na lu bari am déet. loolu naxarlu naa ko kenn bañul bërëb sa bërëb liggéeykaay ñu ñoo njëkk a wax ne Dantec l'époque c'était un mouroir tellement qu'on euh, on était écœuré mm-hmm. suñu xol dafa daan kii sunu condition de travail ñun ba mu nekkee Dantec on avait fait les assises de Dantec à Ngor Diarama on avait li ñu retenir woon mooy tabax hôpital bu bees ci biir surtout Dantec loolu yëpp naam d'accord nañ ci parce que nit da nga yeesal sa liggéey liggéeykaay yeesal say équipement yeesal li kii kooku yëpp d'accord nañ mais comme niñ ko waxee ci biir précipitation lañ ko defee waxoon naa ko teg du loo xam ne da ngay jël rek dal di koy buddi noonu garab boo koy bu bu mag boo koy buddi dafa noo koy jaare da koy préparer mm-hmm. xam nga li ma la mm-hmm. donc euh, kenn bañul ñu tabaxaat hôpital Dantec bu bees mais ana lu tax ñu ne dañu jël ay suuf Dantec di ko jaay pour mun a tabax hôpital Dantec alors que état moo nekkal fi population bi vingt milliards sax warul jaaxal état sénégalais pour mu tabaxaat hôpital boo xam ne mooy hôpital cosaan dant euh, Sénégal mm-hmm. bu ëppul malade fay dem benn hôpital ëppalewu ko ay malade te population bi fu nekk la ñu jógee ñëw faju faju si foofu parce que d'abord njëgu paj njëgu paj mi def fa gën a yomb Dantec Dantec boo demee principal doo laal boo demee CTO waxi nopp boo demee yeneen kii Dantec ngay ñëw ñu faj la avec un coût boo xam ne daal vraiment Euh, c'est à la portée. c'est à la portée dégg donc finalement comme ni nga ko waxee ñu tëj daan tëj yeneen structures yi nga xam ne seen maladie sax jaaxaloon nañ leen ay rendez-vous sore leen nga jël nga jël maladie Dantec ñoo xëppal leen ko mais kooku lu muy def du am efficacité du am efficacité préparé wuñ ko am na li def am na service yoo xam ne ba léegi nee nañ leen ngeen di dem mais fi ñu war a dem defaraguñ ko. aménagé wuñ ko aménagé wuñ ko pour mettre dans les conditions pour ñu toxu. am na service cancérologie dégg naa ba léegi mi ngi des Dantec loolu la la précipitation bi mooy la projet bu amee nañ ci waxtaan ak et puis malade nga dañuy dañuy jànnaaxe. dañuy perturbé fu ñu dañuy perturbé fu ñuy dem amatul fu ñu dem. tey yaa ngi def euh, euh, urologie yaa ngi koy def Ngor xaw ma reel xaw ma yaa ngi koy def feneen yaa ngi koy def te hôpital Dantec hôpital regroupé voilà loolu day métti mm-hmm. loolu moom euh, erreur bu mag la mm-hmm. mënoon nañ préparer malade lu toll ci juróom benn weer ba ci benn at mm-hmm. jéem leen placé pour ñuy tàmm dem ci yeneen structure ñu yaatal yokk structure yooyu pour rek voilà pour habituer leen ba ñu dem ba nga xam ne kenn dematul Dantec maladie seen bopp ñoom ñooy jëkk a bàyyi mm-hmm. ñu doog a jublu ci tabax mm-hmm. waaye lu tax ñuy jaay suufu Dantec yow nga ne boo defee immeuble Dantec hôpital populaire la te boo entré nit du moom rek nga entré njaboot euh, euh, famille nga entré parce que cousin bi dana ñëw fanaan ak moom jarbaat bi lu mot kii am na ñu fay ñëw sax indaale seen bagage su toog ak kii affaire yi dégg euh, culturellement bu ñu bu loolu wéyee suñ ko buggee moderniser def ko dans les conditions même bu ñuy teree accompagnant yi di ñëw. Mm-hmm. mais da xool ascenseur service de maintenance yi. ascenseur bu panne te fi courant bi yenn saa mu ne xuy ne kamet kooku du sooxal liggéey bi mhm. alors que boo ko defoon des systèmes pavillonnaires avec euh, des niveaux plus abordables nga xam ne nit yi mën nañ jël escalier yi je crois que moo gën a adapté pour un boo xam ne population l'essentiel dañ koy dañ koy fréquenter tout à fait et du coup ñuy waroon jàng dante dafa di vocation bi amoon mooy faj jàngale recherche deuxièmement dossiers yi yëpp documents yëpp yu bëri danañ danañ leen sànq parce que ci la gëstu pour saytu pour recherche mm-hmm. pour gëstu mm-hmm. ci domaine de santé document yëpp yu ci bëri danañ danañ naxasaay étudiants yi ngay former yi ngay jàngal pour ñu mun euh, euh, métier bi foo fi ñu donc dañ ko waroon préparer prévoir loolu la kenn bañul ñu tabaxaat Dantec taaral mais nag dafa am euh, nu ñu koy préparer dafa am processus am yoon mhm. loolu la. d'accord.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 dañ koy farataal di dégg docteur kii anesthésiste le réanimateur la pour askan bi ñuy déglu gën a ci am benn vision bu gën a yaato yaatu anesthésiste réanimateur moom liggéeyam euh, ça consiste à quoi docteur Thiam. macha allah euh, anesthésiste réanimateur d'abord ñaari spécialité la boole. Mhm. anesthésie mooy képp koo xam war nga ko opérer wala nga def jëf ci moom yenn saytu yi pour mu bañ a yëg métit bi mm-hmm. booy dagg dara ci moom pour bañ ko yëg booy opérer def lan wala ngay def yenn diagnostic yi yoo xam ne dafay métti pour mu bañ ko yëg anesthésiste moo koy gérer mm-hmm. moo koy nelawal yenn say wala bu ko nelawul mu defal ko pikiir pour que parti bi ngay opérer bu mu ko yëg. Mhm. donc euh, loolu anesthésie bi mhm. te loolu nag dafa nekk spécialité boo xam ne euh, il faut nga xam. Mhm. ban niveau d'étude ah, maa ngi ñëw. réanimation mooy sauvetage. d'accord. képp ko xam ne mi ngi nekk. Euh, en détresse vitale nga jëm ko réanimer mooy hmm. nga delloo ko ci dundam hmm. ba affaire yi équilibré normal jaarat yoon hmm. mooy réanimation ci gàttal ñaari spécialité la muy anesthésiste réanimateur mooy francophonie ñoo ko saloo di def ñaar yëpp ngay maîtriser. Mm-hmm. benn du dem sans sa morom. am waaw waaw dans le système francophone man France laa jàngee spécialité bi. Mm-hmm. donc ñun système français francophone la ñuy utiliser mm-hmm. anesthésie rayonnement ñaari discipline yooyu lañu ñuy boole. boo demee dans les pays anglo-saxons ay Canada ay kii yooyu je pense que ay États-Unis benn nga ci def. doo boole ñaari. ñun nag ñooy def dans le système français. Mhm. ñaar yi la yaa ngi may laaj niveau d'étude il faut nga am doctorat en nga def quatre ans de spécialité léegi def nañ ko cinq ans. Mhm. man ba may bariwuñu fi woon. seen lim. suñu lim eh, eh, limu ANACIM yi bariwul ma dem France maag sama beneen naataango ak ñeneen ñu dem France pour jàngi spécialité bi ma def quatre ans France. Hmm. ñibbisi. servir CTO servir Dantec servir CTO dellu si waat Dantec waaye dafa discipline boo xam ne naam bu chirurgie aujourd'hui amee ndam. chirurgie bu amee ndam. waaw anesthésiste bi moo évolué c'est grâce au progrès de la l'anesthésie réanimation. Mm -hmm. que la chirurgie a pu faire un bond qualitatif. c'est nag dafa di koo xam ne on travaille sous l'ombre généralement. kenn xamuñu. Mhm. bu njëkk ba chirurgien bi la xam. Mhm. dégg nga. Mhm. mais léegi Sénégal ak yenn kii découvrir nañ lan mooy rôle important anesthésie. parce que anesthésiste boo waree chirurgien bi mun na ne ah kii dañ ko war a opérer anesthésiste moo koy xool. ne ko danañ ko opérer moo joxe feu pour ñu opérer. ba xam apte na am déet. de voilà. bu ne inapte nag kenn mënu ko opérer. ah c'est le travail bu ne inapte na chirurgien du ko laal. Mhm. chirurgien bu ñëwee moog anesthésiste bi anesthésiste bi nelawal chirurgien bi opéré dem bàyyi fa anesthésiste bi anesthésiste bi ree ko yee ko yóbbu ko salle de continuer di koy surveiller ba malade bi mun a am cëram dem en division mhm. hospitalisation réanimation mooy képp koo xam ne am nga problème sauvetage comme ni ko wolof di waxee mhm. réanimateur bi moo koy def mhm. anesthésiste réanimateur moo ñëw voilà. tey seen li mu wax nga ko euh, xam naa ne ñu bëri dañuy wax boo jëlee radiologie wala cancérologie donte état bi dina recruter def na ci ay jéego ñu ci bëri dañuy wax ne lim bi dafa xaw a néew par rapport ak ratio bi organisation mondiale de la santé di wax boo ñu doon waxal tey limu anesthésiste réanimateur yi tey rek ci Sénégal ndax jàpp nga ne doy na pour euh, mu mën a wër Sénégal war ngël këpp par le de Dakar kese mais euh, si territoire non non non non non non non kooku xaaj la doy donte lim bi yokk nañu ñun ba doon ñëw fii man matu man ba ma doon def matuñu woon fukk. léegi dem nañ ba ngay compter cent mais cent yi ci biir quinze millions d' habitants. c' est infime. dañuy former encouragé xale yi former leen. Mm-hmm. yóbbu leen fay leen correctement dugal leen ci système de santé ñun lu ñu accepté en bu que doyen yaakaar naa les choses ont changé. ñun suñu temps état bi daawul reconnaître spécialité sax. seen temps. suñu koy def parce que daf la neex. doctorat bi rek lañ doon fay. Ablaye Wade ba mu ñëwee ci tàngam la ñu ba dugal ce qu'on appelle indemnité des spécialités. et les choses ont évolué temps yi dégg naa yokkal nañu. médecin bourse de spécialisation yi waaw. non waxuma du bourse yi sax waxuma bourse yi. ñun mhm. spécialité bu ko daan def da nga yaay ñëw yaay sa bopp. Mhm. xanaa jox la bourse mais pour ñu jox la bourse da nga koy lijjanti. boo jë seetee fukki étudiant ñaar ñoo ci am bourse temps boobu yaay jël sa xaalis di débrouiller di fay. sa bopp. am na benn euh, manifestation bu spécialiste doon def à la rajo Sénégal temps Abdou Diouf. Mhm. yaakaar naa maa jiite woon kii non man gaa amoon naa suma spécialité. mais dama xamoon fi ma jaar xale yi suma rakk yi moon ba ñu kii ma ànd ak ñoom. Mhm. temps boobu hôpital Dantec. Mhm. rajo Sénégal boo demee émission baa ngi foofu. dégg nga mm-hmm. pour ne spécialistes yi dañuy jouer rôle important étudiant en spécialité yi donc bu ñu leen naxasal dañ leen fay parce que dañuy garder di def lu nekk temps yooyu daaw na fay garder bu fi ba léegi nag macha allah étudiants yi ñoom ñi bourses yi yokku nañ mm-hmm. yokku nañ bourses yi may nañ ñu ci bari bourse mm-hmm. am na temps yoo xam ne bu njëkk ba boo daan def euh, du du doo ñëw rek dugg spécialité dañ leen dugal fonction publique nga dem def d'abord médecin docteur de district teg ci loolu la nga am fa ñaar at au minimum nga mun prétendre à la spécialisation mais doo pare rek ñëw directement def mais léegi yooyu yëpp changé na mm-hmm. parce que affaire yi dañ ko soxla le besoin est département bu nekk war na am hôpital. le besoin la demande aussi elle est très forte. département bu nekk war na am hôpital. de niveau minimum. Mhm. foofu te ku wax hôpital wax chirurgie ku wax chirurgie wax bloc opératoire ku wax bloc opératoire wax anesthésie réanimation. Mhm. noonu lañ def pour lutter contre la mortalité maternelle et en général la mortalité en général mais plus particulièrement la mortalité maternelle infantile. Mm -hmm. pour wàññi ko lu baax. Mhm. donc anesthésie réanimation am na solo ci mbir mi. nag. ak gynéco ak yëpp spécialité yëpp yëpp am solo. Mhm. waaw. Mhm. comment se porte cette spécialité au Sénégal. Euh, elle bien l'école euh, est bien l'école de formation mais Dantec bi ñu rey formation bi dañ ci sooxe. Mhm. parce que Dantec dafa doon nekk jouer un rôle capital dans la formation. mais comme euh, nii la demee c'est dommage on va essayer de s'adapter il faut que kii euh, au départ euh, les gens ne connaissent pas les disciplines mais aujourd'hui dañuy buuxante pour def spécialité mm-hmm. te à côté de l'anesthésie am na beneen spécialité mooy urgentiste urgentiste ñun ñëpp bu ñu dañuy liggéey en bloc en mm-hmm. partenariat je dire très bien Mm-hmm. très bien bu njëkk ba euh, euh, bu anesthésie réanimation moo doon gérer yëpp de formation ponctuelle. d' accord. Hmm? Mm-hmm. DU un an au maximum. Hmm? Mm-hmm. maintenant def nañ ko je crois que dañ koy wàññi def deux ans trois ans quatre ans. alors voilà c' est euh, système mi ngi avancé mi évolué. mi évolué bu baax. mais nag état mënul def des pas en arrière mais day continuer pour def des efforts en avant. Mhm. na continuer y a des efforts qui ont été faits ce qui impensable il vingt ans. ci ginnaaw ci gannaaw aujourd'hui on a dépassé mais encore on a fait des efforts sur. les indicateurs de santé, mhm. notamment sur le taux de mortalité maternelle infantile. Mais dites-vous que on n'a pas dit que zéro, mortalité maternelle infantile, c'est un objectif. Et ce pas encore atteint. Mm On est loin de là-bas. Il faut pas se euh, la fin. Mhm. Sinon, les prisons seraient, seraient pleines non, mhm. à ce rythme-là. Et les médecins seraient découragés elle est la politique d'encouragement d'affecter les, euh, les médecins hein, dans les zones difficiles, en tout cas, euh, euh, va avoir un, un mm-hmm. Parce que euh, moi, je ne pensais pas que. Docteur Wolof ci Wolof. waaw xalaatuma woon ne <laughs> xala waaw merci xalaatuma woon ne man def naa. ak équipe bi ma bokkoon professeur Baye Assane Diagne jiite ko à l'époque moo doon chef de service urologie ma nekkoon chef du bloc opératoire urologie mhm. mu ne jigéen ñi nga xam ne dañu doon am fistule obstétrical obstétrical dem Kolda mhm. benn gynécologue moo fa nekkoon fàtte naa turam mais kooku état bi mënu ko fay benn contrat spécial lañ ko defaloon benn euh, xaw ma FINUAP moo ko jëloon ONG. Mhm. di koy fay pour mu appuyer waa Kolda. donc fa jógee toog nañ lu yàgg amatul. amatul foofu dañ daan opéré suba bu guddi huit heures ba vingt deux heures vingt trois heures ci guddi def nañ fa quinze jours di wër di opéré. Mm. Tambacounda opéré nañ foofu Kédougou dem nañ foofu euh, Néné Faché mhm. dem nañ foofu dégg nga sans les autres tout le temps dañ leen de mission pour dimbale les femmes ki sont porteuses de fistule Il le professeur Magaye Gueye qui a pris le mhm. vraiment aujourd'hui a rayonné en Afrique parce que le besoin est là. Non seulement ils gèrent euh, les fistulés au Sénégal, cette équipe, mais aussi ils, les ont envoyés en mission. Hein. Mm. Ces éléments sont partis en mission partout dans, euh, en Afrique. Mm-hmm. Dem nañ Madagascar Côte d'Ivoire Mali Guinée-Bissau partout partout partout. Mm. a des voilà. d'accord euh, docteur du ñu def émission bi di nga ko jeexal te laalu ñu sa beneen casquette bi maanaam économiste de la santé bëggoon rek nga wax ñu euh, économiste de la santé moom xam naa ne askan wi bi nga koy dégg bëriwul war a farataal nga ko dégg sax suma juumulee bu baax lan la wundu économie de la santé dafa nekk spécialité boo xam ne sunu réew yi dañ ko soxla. man nekk naa anesthésiste xaw ma lu bari ci affaire kii maanaam dafay wundu ne boo xoolee essayer booy liggéey santé surtout ci wàllu financement mm-hmm. tey réew yi sunu réew yi amuñu kàttan financier rek bu doy. Mhm. léegi dañu ne économie nga dugal économie ci biir euh, des ressources rares nga adapté ko à une pour am un meilleur rendement. d'accord naka nga mun a amee ci ressources rares yi nga am donc pour avoir un meilleur rendement au niveau des soins. Mhm. loolu mooy objectif économie de la santé. Mhm. donc ci biir wàll boobu dana gëstu fànn yu bëri dana xam système système sanitaire mm-hmm. dana xam financement de la santé mm-hmm. financement du jël xaalis rek dugal parce que lépp financement la mm-hmm. boo ñëwee tabax tabax sa hôpital ci benn kii financement la parce que xaalis moo ko tabax boo jëndee matériel pour hôpital bi financement la xaalis moo ko wund ressources humaines ba leen di fay xaalis la coût dañ def étude de maanaam yow hôpital surtout contexte bi ñu nekk mhm. hôpital yi dañ leen transformé en en entreprise mais dañ leen wax ne bu leen def bénéfice mais na ngeen équilibré seen i compte c'est vrai dañu hôpital ñu def bénéfice voilà doo def bénéfice loo am danga ko delluwaat ci système bi ci hôpital bi pour pour mu gën a suqaliku pour que au finish patient bi kontaan dégg nga donc mais dañ la wax nga équilibrer say compte yoo léegi hôpital entreprise boo ñëwee euh, fournisseur yaa ngi lay jox ay garab fournisseur yaa ngi lay jox ay équipement mhm. fournisseur yaa ngi lay jox ay kii mais danga nga leen war a fay nee nañ leen ko fay état bi gaat na la jox budget financement mais yow yaa war a équilibrer li ngay dot ci xaalis pour que loolu yëpp li ngay fay mun leen fay fournisseurs yi doo amee kenn bor matériel euh, médicament yi disponible jumtuwaay yi disponible pour nga mën a liggéey mhm. nga produire des soins mhm. nga satisfaire maladie donc yow naka loolu dafay expliquer le fait que defuñu économie bu baax mooy expliquer parce que à chaque fois dañuy dégg ñu naan euh, gestion hospitalière yi dafay am problème particulièrement dette hospitalière yi chaque année donte état bi dina ci def sax dina ci dugal euh, ay moitié mais ba léegi des dette hospitalière yi moom daanaka pour ñu éponger ko dafa mel ni c'est la catastrophe. lenn la munoo munoo munoo produire affaire yi dikkee la euh, fukki dërëm. Hmm? nga koy jaayee juróom. d'accord. ci fukki dërëm yooyu ay bor yoo amel la. Hmm. soit ci investissement yi ci ci équipement yi wala fournisseurs yi. tout à fait. ak état bi lu mu lay jox. munoo sa coût santé moo tax économie de la santé te étudier benn volet bu am importance l'étude des coûts paj bu ci nekk ñaata la lay dikkee. tout état bi dafa def ne jaay leen lii mais loolu couvrirul charge yi. boulanger bi dafa jënd farine bu ko état bi ne na jaay mburu fukki dërëm te mu war a fay euh, courant fay euh, farine bi fay kii du ci gën. Mhm. il faut une étude de coût ne paj bi nu muy revenir réellement pour ñu doog a mën a fixer prix yi bu ko fixer nag état bi ne man jël naa subvention lii pour suma pour sénégalais léegi lii la yow mii bëgg a faj si parce que subvention ne da ngay séddoo charge yi ak état bi yow da ngay fay mu day gën a yomb ci yow mm-hmm. Mm-hmm. moo tax ñu gis endettement. endettement. Mm. yoo xam ne fayloo ko day dem ba yow dootoo mun a euh, produire des soins boulangerie bi bu bëggee defar mburu mu dem ameel meunier bi xaalis meunier bi di koy di koy jox rationné du mën a def mburu bu doy wala yenn saa sax du mën a. def produire sax. waaw loolu la c'est tout. donc dans notre système de santé on n'a pas fait une véritable étude des coûts pour chaque type de soin. Mmh. et dafa jot ñu def ko léegi la réalité des prix lii la état bi ne leen dinaa jël lii en charge comme forme de subvention. yow nit ki euh, personnel en tant que Fatou. Mm-hmm. booy faju si li nga war a fay. mais des fois aussi dañuy wax hôpital warul def bénéfice euh, docteur. du def bénéfice. d'accord musul def bénéfice. Mm-hmm. dañ na équilibré compte yi. d'accord xaalis warul fanaan ci kees yi mais yow tamit war nga fexe. ba bor yi mhm. li ngay produire mu mun nañ euh, nga mun ci fay say employé fay ci say fournisseur jëndi say garab su yi continuer. Mhm. mu nekk continuité. waaw hôpital ku la ne bàyyi naa kees ci xaalis xaalis ci kees yi waxul dëgg. Mhm. munu euh, seetuñu bénéfice. loolu benn la ñaar. hôpital bu mel ni hôpital Dantec te ñëpp xam ci sous région. Mm-hmm. te ñëpp xam ne yàgg na forme yàgg na faju faj waa Afrique ñu ci bari dañuy wax ay patients yu jóge Mauritanie Gambie Guinée Bissau partout ak sous région bi ñëw Guinée Conakry dégg léegi yow sénégalais ñu ne li cent cinquante pañ bi cent cinquante ticket cent cinquante ngay jënd yaa ngi fay impôt de mm. da ngay fay impôt sa impôt bi ci li ñu jël pour financer hôpital bi sa xaalis dem na ci mm-hmm. parce que yow fi nga yeewoo impo yi yaa ngi koy fay nga fay cent cinquante ki jóge ci beneen beneen dëkk réew bu dul Sénégal ñoo di fay cent cinquante yow exploité nañ la doublement. doublement tout à fait. parce que tarif yi ci xam c'est des tarifs subventionnés. deuxième aspect la formation université dafa war a dugal xaalisam ci hôpital. Mhm. bu daan teg niveau national. Mm. naam am na personnel bu mu prédisposé foofu di koy fay. hôpital aussi di leen di fay beneen émolument mais teyul formation na ci investir parce que yaay jënd matériel bi kuy jàng yaay yàq élève bi ñëw mënagul maîtriser wul ma nga jënd sa appareil. la ko utiliser mu damm ci benn affaire nga war ko changer. kooku mhm. du nekk kii yu tam nga ko utiliser waaye moom tàmm ko noonu ku jàng yaay war nañu fay loolu. Mhm. deuxièmement recherche hôpital Dantec tur bi dafa rëy au niveau mondial fa lañ trouvé professeur Mboub fa la trouvé deuxième euh, virus sida bi variante deuxième virus ko hôpital bi jaay na boppam financement yooyu recherche bi dañu war a dugal ko ci biir kii gestion bi waaw hmm. donc ministère de la recherche war na dugal xaalisam ci hôpital hmm. donc ñett ñooy seex hôpital Dantec ministère de la santé ministère de la recherche formation D'accord. Et de l'enseignement supérieur. Enseignement supérieur et recherche. Voilà. OK. docteur euh, mu mel ni waxtaan wi am na solo waaye daa mel ni li ñu cëraloon ci waxtu bi yegg nañ ci. waaw léegi di leen euh, di am mbégte yaakaar ne et sunu entretien bi euh, dina nekk lu jëriñ askan mm-hmm. te bu ci ay rëq-rëq amee xëy na l'erreur est humaine ñu ngi koy ñu ngi ciy mhm. patriotisme bëgg sunu réew moo ñu tax a jóg dafa ne jot ne système de santé bi ñëpp ko bokk ne woon naa ci biir santé bi lañ di diisoo alliance pour la sécurité des patients ministère daf koy war di soxla pour di diisoog ñoom am na yeneen euh, on ne doit pas toujours inviter à la télé ou bien ministère naan kii laay inviter toujours les nu mu tudd si les mêmes têtes la les consommateurs association pour les consommateurs ñoo nekk fii ah di lëmbee kii di wut ay postes d' de PCA ou de xawma la di mhm. ñëw fii di jéem a def la il faut que ñu arrêté loolu. Mhm. nañu ñëw parce que xam nañ ko jëf nañ ko yéene nañ ko am nañ ci man duma dem fëgg buntu kenn ne invité leen ma to weesu naa foofu. Mhm. système de santé bi surtout bu Sénégal xam naa ci tuuti. Ebola ma dirigé contingence boobu dem fële. Guinée OAS moo ñu téye def naa ci Guinée ñaari séjour pour CEDEAO beneen bi pour le compte de l'OMS boo corona bi ñëwee tooguñu dem nañ ci plateau télé pour wax affaire bi nu mu demee ak yëpp liñ ci suñu xalaat léegi Sénégal nag boo waxee wax loo xam ne boo ko wuy wuy rek ñu voilà. bu fii nag dama libre man lu ma xalaat lu ma gëm lay wax. tout à fait seetuma ci mhm. président Macky Sall il a fait des efforts mais waxuñu ko dëgg. Mhm. dans le domaine de la santé il faut que mu serrer les coudes encore xool nu baax réfléchir. d'accord mhm. lu bëri des na. d'accord y a des hôpitaux yu ñu tabax. Mm. félicitations. Mm-hmm. Kaffrine Touba et d'autres mais nag. du tabax rek. il faut ngay contrôler. d'accord et il faut des sanctions positives et des sanctions négatives sanction bi du jël euh, personnel santé bi tëj les responsabilités son partagées. d'accord euh, les responsabilités sont partagées mbokk auditeurs yi ñoo ko déggandoo euh, tey jii nag seen émission SOS santé mu amoon euh, gan comme invité muy docteur Oumar Boun Khatab Thiam nekk président bu alliance nationale pour la sécurité des patients waaye tamit nekk anesthésiste réanimateur te beneen wàllu wa mu def lépp lu jëm ci wàllum saytu gestion gestion économique structure hospitalière yi maanaam économiste la santé i fàttali ne moom moo nekkoon tey suñu invité suñu émission bi di SOS santé SOS santé nag Fatou Baba Fall moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk ancien syndicaliste yokk na ko nee na ancien syndicaliste toujours syndicaliste ñoo ko déggandoo ay kàddoom la SOS santé Fatou Baba moo nekkoon ci micro bi Bachir Cissé nekk ci xarale bi jërë ngeen jëf ci déglu bi beneen vendredi beneen invité ak beneen émission merci à jaar na yoon kay. Ah.